Euh, boo ko waxee rek nit ñi bu ñu réaliser wax nga ko euh, leader bi teg nañu ay maire ay député ñoo xamante ni dañu yor ay nombal tànk ci réew mi loo xamante ni du ay nomination du ay moomeel askan wi ñoo yëkkati jël confiance teg leen ko ñu ñëw dugal leen li nga xamante ni mooy prison waxuñu ñaata sénégalais aujourd'hui ñoo nekk euh, ci buumi euh, euh, prison bi fi mu toll nii mu nekk loo xamante ni euh, vraiment mosuñu ko gis dans un cadre démocratique ñun Sénégal xamuñu woon lii dañu reculer donc boo nee ban force la ñuy am non lii dañuy dina joxaat force comme ni ma ko waxee sànq parce que ça veut que ni am na lu marché wul aujourd'hui ci politique Sénégal parce que boo xamee ni am nga benn président boo xam ne dafa ne je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression mu am koo xam ne mu di ko teg di ko tegaat teg na Karim Wade teg na kaa xalifa Sall d'ailleurs loolu sax peut-être dinañ ci revenir parce que euh, euh vraiment ressuscité nañ leen sur le fait que euh, euh, nee nañu la ñu defoon vraiment mayaat nañ leen seconde chance te ñëpp nag tout le monde a droit nag à une seconde chance. Mm-hmm. loolu il faut ñu poser terme yooyu ba pare. tout le monde a droit à une seconde chance. Mhm. ñu leen dañ leen di may seconde chance. et je pense que dans le cadre de la coalition Yewwi Askan Wi. Mhm. PASTEF loolu la ñu mës soutenir ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo sekkoon coalition boobu ñi war a bokk dañoo war a bokk ci élection yi Khalifa Sall dafa war a bokk Karim Wade dafa war a bokk Sonko dafa war a bokk Déthié Fall keneen ak keneen ak keneen ak keneen képp ku nga xam ni jàpp nga ni euh, am nga daraja bi pour mën a bokk te aussi. loi bi may na la pour nga mën a bokk wala en tout cas injustement wala bokk ci ni ñuy doxalee jaay nañ la doole ba nga xamante ni am na lu la génne war nañ la may nga dem mais loolu lañ mës a défendre tey bu ñu yegsee ba ci loola ñu jël yooyu yëpp puus fële parce que nee na ñee sax garaawatul parce que xëy na daraja ba taxoon ñu noot leen ba euh, euh, dugal leen ci li nga xamante ni mooy buum euh, nekkatul léegi am na keneen koo xam ne jóg na Euh, euh, fas yéene euh, wàccee suñuy plan parce que troisième mandat bi moom nekkoon na mu mbét boo xamante ni wax dëgg fa yàlla bëggoon nañ ko puus ñu dem ba gis ni président Macky Sall nekk na koo xam ne mënatul gagner élection fii ci Sénégal parce que gis nañ cheminement bi mu toog ci kanamu Sénégalais yépp ñëpp nag saluer ko pour une première fois un président toog ne du ma forcer seen duma am troisième mandat ñu xaaroon ko nag depuis longtemps xëy na. bu ko teeloon wax sax euh, booboog léegi xëy na lii yëpp sax duñ fi jot am ndax ay nit nit nag dee nañu fi ay nit nit nag ah, sacrifié nañu ci ay loo xamante ni flou moom moo ko indi ak yaakaar ni dañuy noot ki nga xamante ni mooy un opposant mais dafa mel ni dañ ko continuer findeel parce que ba ñu nee ah yow kat empêché nga ma tey jii ma def xëy na la ma bëggoon def waaye yow doo ci génne noonu ndax na mu neexee woon ci yow nga di ma teg loo xamante ni janoog naak Sénégalais ba ne mënatuma continuer yow it di nga ko mën a layoo parce que entreprise bi nga bëgg mooy dem présidentielle du ma ko def moom moom la ñu gis parce que yéen a ngi wax waxi dissolution bi ah. mais contumace bi tey jii dañu jóg gis euh, tiitre de l'Obs notamment ah, euh, wax ci nii parce que premier premise bi mooy communication bi nga xam ne doxal nañ ko tous ces derniers jours ne Ousmane Sonko euh, dañ koy reyee ci liste bi ndax hmm, contumace bi euh, mi ngi continuer ba tey parce que arrestation bi ñu ko defal nekkul en rapport ak euh, procès bi nga xam ne amoon na ko mu nekk une hérésie tey ñu jóg ñu ne rey nañu Ousmane Sonko des listes électorales mais mais mais c'est-à-dire que on est où cest dire boo xam ne c'est-à-dire que comme ni ma koy waxee rek ñëpp ñi nga xamante ni toogoon nañu ne Ousmane Sonko warute woon a def lii Ousmane Sonko warut a woon a del sud boote Ousmane Sonko li muy wax dafa rëy Ousmane Sonko lii Ousmane Sonko laa léegi war nañu mën a gis ni Ousmane Sonko bépp jalon bu mu mënoon teg tey Sénégal munu ko woon empêcher mu am destin bi parce que dafa gêner ñi nga xamante ni tey jii ils sont dans la logique de conservation du pouvoir. d'accord foofu waaw loolu la ñu